CFO International. CFO International. abonné leen ci YouTube ngir jot saa ay xibaar yu wér te wóor aju ci opposition bi tamit ñu ci bëri benn ci benn ñoo ci réagir ñu ci bëri ñu ngi leen di dégg fii biir bu gàtt nag danañu yëgle ñëpp ñu nga xam ne ci politiciens yi signé nañ ak ñi nga xam ne laajte nañu aussi bu politiciens yëpp maa ngi ko signé yóbbu ko assemblée alhamdulilah loolu la ànd sàmm jikko yi bëggoon ñu criminalisé ko buñ ko deful nag population bi danañ ko defal seen bopp ndax dañuy wax ne wokkal ma wokkal ma ngay wokku te fi ñuy xasan lu xasan wokku ma ba léegi ñu ngi naan wokkal ma kon fa ñuy wokku xasan fi xasan nag ñun xam nañ ko danañu fa wokkal wala ñu wokk wokkal fa suñu bopp wala ngóor jigéen bu ñu def benn point ci Sénégal te ji nan ngi ba nga xam ne euh, permis yi ñu ngi ci def genre ñu ne genre mooy lan mu ne dañoo boolewaale góor jigéen ci biir langue gi ci la ñu bokk ndax bu njëkk sexe moo amoon muy homme femme mais ñu dem mam yàgg gis ne dafa am ñeneen ñu bokk nag homme bokk ñoo femme muy ñoo xam ne dañoo taamu doon leen ñu bindi homme femme ci population bii di Sénégal dugal fa genre kon góor jigéen ñaa ngi am bu demee ba nga xam ne sunu euh, carte d'identité yi génne nañ ci sunuy waajur question la lan moo tax ñu génne ci suñu wayjur ba nga xam ne ni tey wayjur yi ci bëree bëri euh, wala ñu bëri ñu am carte ci sénégalais yi yu bees yi sa sant rek ci nekk sa turu yaay nekku ci sa turu papa nekku ci lan moo tax moom la nekku ci dafa am lu ñuy wax ndax góor jigéen bi ñu demee ba xam ne dugg nañu ci lu bon mënuñoo am doom dañoo tàmm nag léegi dañuy dem adopté ji ku mën a am doom góor a jigéen yu mën a am doom ñu adopté doom jooju ñoom góor jigéen ñi ñu doomoo te dañoo gisee bu ñu doomoo xale boobu noonu mais mënul am yaay ak papa ñaari papa rek la mën a am wala mu am ñaari yaay ñu ne kooku noonu le pour bu bokk ci mbir yi ëllëg nañ ko waajal moom mu mën a am carte d'identité moom doomu góor jigéen bii ñu adopté ñi nga xamee ne noonu la ko yeneen sénégalais yi am papa ak yaay amee loolu noonu la ay jéego yu avancé bu sénégalais yi bàyyi woon ci xel ku ci nekk na posé question lu tax sama carte d'identité amul sama turu yaay amul sama turu papa question bi boo ko posé réponse bi dana dikk mooy yow ak doomu góor jigéen ba leen ñu adopté a bokk même droit ci Sénégal ñoom waruñoo am yaay waruñoo am papa yow waroo am yaay waroo am papa loolu sénégalais nañ ci bàyyi xel. beneen bi ci mujj yéen presse wax naa leen ko ci biir daje mais seen code la presse bi article dix lu tax ba léegi leen ci waxtaan ci tere nañ leen ngeen wax lu ci boddante ci wàllu xeet ci wàllu diine mais ñu dugal ci orientation sexuelle première fois yow mi nga xam ne yaay journaliste bi ci sa télé ci sa rajo wala ngay bind amoo droit di joxoñ wala ngay joxar bi wala ngay boddi bi nga xam ne ko bind 2016 2020 dañoo bëgg bu ñu yeggee 2026 kon 2026 lépp lu jëm ci ay boddi góor jigéen ak dóor ko fitnaal ko mu jeex Sénégal mais noonu la gouvernement du Sénégal moo ko liggéey ci suñu lii ak yu bari yoo xam ne yu nëbb la ba ci école bii nga xam ne mi ngi waaj a ubbi mais wuyu nañ xalaat programme bi ñu proposé lu ci bëri wàllu genre ñu ngi ci biir te ñun ñëpp xam nañ ne genre li muy jàngale ak ngóor jigéen la ak nuñ ko mën ci définir xale yi lañ bëgg a former génération bii la ñëw même bu ñu doonul góor jigéen bu ñu bañ góor jigéen bu ñu bund xataal góor jigéen nañ ko xajo loolu noonu leen nag mooy tontu li nga wax ndax góor jigéen mi ngi avancé Sénégal bien sûr mi ngi avancé loolu moo tax ñu bëgg ñu criminaliser